Nous ñu mutualiser nos forces pour avoir un Sénégal meilleur pour améliorer nos conditions de vie mais pour participer au développement économique de notre pays waaye pour capacitation jigéen ñi pour capacitation jeunesse pour faire leur promotion parce que nous sommes un plié pour le développement socio-économique et accompagner le président de la République dans sa politique publique Nous sommes ngi am de partager avec les tey ngoon gi nga xam ne li ñu fi bolé moy suqaliku ndax nak bu ñu yoonu yokuté rek ku né les ne ni ay projet ak ay programme dafa euh, pour nous and ci mom nak suy dox te dox Nous ñu taxaw mais les et les princes de l'émergence, ak leur euh, technique euh, conseiller spécial ak plus lu les comités de sages de France de passage ñu ngi œuvrer sur cette lancée ne ñoom kat li président def ci bi def ko ci bi def leadership féminin ñu ne lan la ñu bëgg ñu ne suñu thème on va agir intelligemment mais on va penser équitablement et on va innover ensemble pour le changement kon yàlla suñu borom subhanahu wa taala may ñu mottali ak suñu sago xam ne amul benn xeetu xéewal bu suñu borom wàccee mu jomb ñu kon il faut nag ñu gëm ko loolu il faut croire au succès pour l'avoir waaye nag li ñu gën neex muy les trois axes du PSE la transformation structurelle

amuñu seen fay parce que nit ki bu wérul du dara président moom moo ni dama bëgg ma dindi fi kumba am ndey kumba amul bàyyi boo duggee nga évaluer suñu statistique 20 pour cent de la population sénégalaise ñoo nekk ay fonctionnaires te ñooñu nekk ay fonctionnaires mënuñ faj sax seen yaay ak seen pap seen jabar ak seen i doom lañ mën a faj waaye bu mu ne dama indi couverture maladie universelle boobu dañ ni chaque maison un carnet carnet boo jël mën na jël fukki nit ak juróom-ñaar jël yaay jël papa jël maam jël goro jël njëkke ba jël jànq bay liggéey ca kër ga kon kooku amuñu fay ñu ne nag naka ngay def pour aar carnet boobu da ngay dem ci mutuelle bi la gën a jege nga wax ne man dama bëgg a si ci biir keppaaru mutuelle bi sama inscription dafay nekk 1000 francs ñu ne naka ngay def ba mën a faju am couverture ci at mi yépp mu ne man kat vraiment gis naa ni. buñ ko defoon 7000 mooy baax waaye ci sama yërmande ak sama ñeewantal dindi kumba am ndey ak kumba am baay dinaa participer à moitié 7000 ba moom fay 3500 yi couche vulnérable ba ñëw fay 3500 yi kon carnet bi ak cotisation annuelle bi da lay dikkee 4500 nga mën a faju ci anam bu yomb bu amee consultation dem ci hôpital ba nga la gën a jege bu dee dañ lay référé nga delluwaat ci mutuel ba mu defar la kayit waaye di nga mën a fay un cinquième Bon amé ordonnance nga dem ci pharmacie bañ la agréé nga fay daal di kon lolu foog naa ne am solo ndax jigéen li tax ñun carnet yi intéressé ñëw dañu bëgg allier microfinance et assurance maladie tay ku wax waxtaanu jigéen wax financement ñuy sant président de la république ci la délégation à l'entrepreneuriat rapide muy DER foog naa ñu liggéey ci lu am solo ci biir Sénégal ba ñu tuddee ñu bàjjan deer ñu tuddee ñu madame deer ñu tuddee ñu madame million kon loolu sant yàlla la subhana wa taala ñaan yàlla mu dolli ko waaye may ñaaxaat jigéen ñooñu nag ci modalité de paiement mooy bu ñu financé daaw lu mat junni nit ci ay ndaw ci jeunesse bi finance ko ci jigéen ñi ah taux de remboursement bi mettiwul cinq pour cent la

jàll jëli succès bi ñuy xaar xam ne ñun on est la relève de demain mais on est surtout la cible prioritaire d'ici à l'horizon 2035 ñu nag suñu xale yële toog muy la jeunesse républicaine ñu ngi leen di nuyu kon nag suñu mission boobu ñun dañ ko bëgg a accomplir bëgguñu ko trahir kon bu ñu fecc ci kóllëre ku sa àpp fay jot demal nga fay ndax ngallaawaay ibi war nañu 3800 comptes DER ñu valider ko ku ci nekk fi foog naa sa calebasse gis nga ni liggéey bu mucc ayib mais bu metti way ñu liggéey ko ak bànneex pour mën servir nos populations dal ni kat l'œuvre humaine repose en général sur le pouvoir de l'homme à améliorer ses conditions de vie suñu borom mo ñëk a bind doomu aadama mais ci loolu moom la gëna a sopp kon nag loolu bu taxee ñuy tarbi suñu soxla askan ba dugal leen nañu am courage waaye am fulla fayda sensibiliser leen pour ñu dem fay ci anam bu rafet ba ñu mën leen dolli waaye ñu mën a laabiree seen morom yi mosul woon dugg ñu ñëw dugg nag ndax daanu dajul suuf kon nag yéen lañuy xaar bu ngeen gaawee ñu gaaw balaa budget janvier bëggoon nañ dal ci recouvrement yi financé ñi nga xam ne jot nañu dugg parce que seen dossier validé nañ ko kon ku ne madame looy xaar madame Linguère yi lay xaar nañu fay ñu jox autonomisation de la femme qui dit autonomisation ñu de passage la trésorière nationale Khadijouf Dial la secrétaire nationale ndax ku la présidente de la commission Arafat ñu lay nuyu maman Ndaw présidente Rahman de ñu ngi nuyu sa

kon ñi nattagul bu ñu nangu ñi natt di leen ëppal tuyaaba ndax bi ñu demee tuubaakat xalif bi ñaanal nañu uuf nañu sant gërëm mais may ñu espoir